bisimila yéen waa Sénégal yéen waa àdduna wërngal këpp toppati leen ma ma wax leen fu yu baax nekk xoolal ma yi xeeti montage photo yow mi am sa anniversaire bëgg koo def ay photo affiche wala nga bëgg koo affiche ba ñëpp def si sa photo nekk ci ñu defal la ci am mbind mu rafeta nee naa la seeti ma waa Zappin TV wala yow mi am sa mariage nee la bëgg koo def photo affiche nee la seeti ma waa Zappin TV xoolal ma yi xeeti montage ba ci ay vidéo ñoom moo xam nga am sa anniversaire bëgg koo def affiche xoolal ma ñuy xeetu montage yi rafet waa Zappin TV rek ko mën nee naa la xoolal ma ñuy xeetu montage képp xam ne soxla nga ñu nga woon ci numéro téléphone bii ma lay waaju jox 77 666 56 70 77 666 56 70 numéro yaa ngi ko waa TV am leen jàmm waay